kon nag képp koo xam ne ak waar ñëw na ci yow jóge ci yàlla nga dellu gannaaw tuub lekk goo doon lekk riba yàllaay wax de tuub lekk goo doon lekk riba la nga jotoon a lekk ci riba dinaa la ko baal sa mbir dellu ci yàlla képp koo xam ne ki nag gannaaw bi nga dégg aaya ji dangaa dellu di lekk riba ñooñee ñooy waa safara dañ fay sax ba faw gaa ñi aaya ji ëpp naa romb romb bu gaawee noonu li nu alak mooy jàng alquran te duñ ko def tadabbur jàng alquran te duñ ko seetlu jàng alquran te duñ ci xalaat ab jullit nan lay gëm ne yàlla am na gëm ne alquran yàllaa ko wax te xanaa waxe caaxaan bu dee am xanaa ya waxe yàlla du ko doon de yàlla ne nangam ku ko def ñooña ñooy waa safara dañ fay sax loolu la suñu borom yàlla wax mu ne ku dellu ci riba fa ulaika asxaabu nnaar ñooña ñooy waa safara hum fiha xaalidun dañ fay sax ana gaa yi kan ci nun moo bëgg a bokk ci waa safara sax fa ku ko bëgg kan ak kan lekk riba ci nun dendale leen yooyu ñaar yàlla teg ci nii yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat yàlla nee na damay mabb riba damay barkeel li nga xam ne dañ koo jaarale ci yoonu yàlla génn ci ak ak faqir ak miskin alal ju lew dina liggéey liggéeyin wu lew ci islaam ba noppi génn ca ak ya ca war a génn loolee dama koy màggal def ca barke riba nag dama koy mab riba nag dama koy mab man damaa defe ne suñu crise économique bi ci Sénégal bii damaa defe ne riba bee tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit bi su dajalee alali riba benn pepp par benn ba mu motum taax yàlla xëy mab ko par ay wogg ba mu jeex tàkk te wallahi mën naa leen a limal lu ëpp fukki commerçant ñaar fukk yu ma xamoon te bu ma juddee léegi yàggul yoo xam ne kenn ku ci nekk demoon nga ba denc ci ay million loo xam ne yaakaaroon nga ne dootoo jeexal tey amatoo njël yàlla mu ne day màbb riba day barkeel soroxaat li ñu joxe ci yoonu yàlla yàlla buggul kenn ku goree bi buggul kenn ku mën a tooñ ba tey maa ngi ci aay suñu borom la wax ne ñi nga xam ne gëm nañu yàlla tey jëf ay jëf yu baax maanaam ñu nangoo tënku ci alxuraan ak sunna di taxawal julli di joxe asaka ñooñee am nañu seenu bi yool fa yàlla te aajuwul ñuy ragal dara aajuwul ñuy jàq aajuwul ñuy tiit du ci àdduna du ci àllaaxira mën na noo laaj ba xam lu tax suñu borom yàlla di wax ci mbirum riba te wax ji ay ci riba àggagul mu jaarale fi aaya bi wax ci mbirum gëm ak mbirum julli ak mbirum asaka suñu borom daf noo bëgg a won ne kenn mënut a tàqale système économique bi ngay dundee ak ni ngay jaamoo yàlla julli ak koor ak système économique ak système politique fenn foofa dem fekk fa ndigal yàlla ak i terrain bala ngaa mën nekk julli da ngay boole yépp waaye mënut a am wut sa course gu gudd mën a nodd lool mën a sikkar lool boo génnee ci wàllu politique ci wàllu ni ngay wutee alal nga jaar koo xam ne neexut yàlla yàlla da koy tere kooku contradiction la mënta am suñu borom yàlla continué ne ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha wa daru ma baqiya min arriba in kuntum muminin mu ne yéen ñi ngeen xam ne gëm ngeen yàlla waaye waaye ragal leen yàlla te bàyyi des ci riba bi nag li ngeen lekk ci riba ëpp na li ngeen lekk ci riba ëpp na ragal leen yàlla te tuub te bàyyi des ci riba bi ndegam ngëm gi ngeen di woote dëgg la ci yéen su ngeen ko deful na ngeen xam ne yàlla déclaré na leen guerre su ngeen ko deful na ngeen yëg guerre buy bàyyi koo ci yàlla akub yonentam ndekete Sénégal dañoo déclaré yàlla guerre ah xankay xankay Sénégal dañoo déclaré yàllaa ko yonentam guerre ndax dañuy lekk riba mënuñu koo bàyyi te duñ ko jéem mënuñu koo bàyyi te duñ ko jéem yàlla nee na fa in lam tafalu dem leen ca surat numéro 2 aaya li ko tàmbale ci 275 ba 279 yàlla nee na bu ngeen bàyyiwul riba bi na ngeen xam ne na ngeen yëg guerre bu leen décl bu leen yàllaa ko yonentam déclaré su ngeen tuubee nag kon yéen a moom seen boppi alal du ngeen tooñ kenn kenn du leen tooñ abu daawud solo na mook tirmisi xadis bu jóge ci jaabir mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laana rasul laana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi qaala kulluhum sawa dana yonent bi yàlla bi rëbb na karak riba yonent bi yàlla bi rëbb na képp ku lekk riba ak ka ko lele ak ka ko bind ak ñaar ne ko seere ne ñoom ñëpp a yem ah gaa ñi déglu leen ni ñu rëbb ci riba ki ko lekk ak ki ko lele ak ka ko bind ak ñaar ne ko seere moo gaa ñi mbaa amu fi kuy liggéey ci banque buy def intérêt bu fekkee am na fi na koo ko xam ne yonent bi ne yonent baa ngi koy rëbb dañuy jottali rek li yàlla wax ak yonentam ibnu majja jële ci abu hurayrata radiallahu anhu bu wax ne yonent bi wax ne raaytu laylata usriya bi lamma intahayna ila alsamai alsabia fa nadartu fawqi fa ida ana biracdin wa buruqin wa sawaaciq fa ataytu ala qawmin butunuhum kalbuyut fiha alxayat ترى من خارج بطونهم قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء أكلة الربا يننت بنينا حديث بخم ابن ماجه موقع جلت أبو هريرة يننت بنينا صلى الله عليه وسلم قد جمع رنانة muy guddi gi ngeen di fàttali ko rañaan gi kazu rajab ngeen ko tudde li ma gën a jaaxal ci jullit ñi mooy diine ji deseetuñ ci lu dul fàttali ko ay bis fàttali ko bis bi yonent bi rañaanoon te la taxoon yonent bi rañaan ak lam fa jële ci ay xikam doo ko bàyyi xel nan seet las lëf lu bokk ci la yonent bi jële ci ay xikam ci rañaan nga tey yonent bi nee na guddi ga ma rañaane damay dem ànd ak jibril nuy dem di dem ba àgg ca asamaani juróom-ñaareel sax nee na ma xool ci kaw gis fa ay dënnu ak ay melax ay dënnu yu ànd ak safara nee na ñu indil ma ay nit ñoo xam ne seen biir ya seen koll ya daa rëy ba toll nay néeg gaa ñu ku mos a gis nit koo xam ne koll ba daa rëy ba toll néeg Sayyidna Muhammad ne moom la gis keroog ba mu rañaanee nee na koll yi rëy ba toll nay néeg ay jaan nekk ci biir koll yi la hawla wala quwwata illa billah gaa ñi ku ñemee fab jaan dugal ci mbubbam ci biir mbu mi rek ah bu ko yàlla ne caf ne koy yomb ci biir koll bi nag ay jaan yonent bi nee na ay jaan laa gis ci biir koll ya te nee na boo taxawee di xool koll bi rek seen jaan yi ci biir te biir yaa ngi rëy ba toll nay néeg xaw ma dafa ne xaw yonent bi ne mën a jibril waaw ñi ñana ñi ñana mu ne ma ñii ñooy lekkati riba yi ñii mooy ñooy lekkati riba yi bala moo am njëriñ képp ku doon lekk ci riba riba ci nun day xalaat ba xam mbaa du bokk ci ñooñu ëllëg te kat wóoru su fekkee Abdoulaye Touré mi ngi lekk riba amul benn preuve buy tegtale ne ëllëg du bokk ci ñooñu borom biir yu rëy yu toll lay nekk jaan ne ca biir di mat amul benn tegtal bu nuy wane ne Abdoulaye Touré bokk ci ndagam mi ngi lekk riba yal nañu yàlla baal yal nañu yàlla musal waaye nag nanu baalu te muslu nanu dellu si ci njubug yàlla gi riba xam ngeen ko ñaari xeet rek la bi ñuy wax ribal nasi'a ak ribal fadl ma leeral riba ndax ñi nga xam ne ñi mën naa am daanañ ko dégg te xëy na xamuñu tafasil ya riba mooy nga lebal nit xaalis la mu lay fay di xaalis nga teg ci intérêt donte benn franc la benn fifteen boo demee ca banque ba ñu lebal la un million app ñaata weer ñetti weer liñ ci teg ci intérêt ñaata lañ ci teg ci intérêt damay laaj ah ah mi ngi aju ci taux bi nga fa teg su fekkee dañ fa teg un million ñu ne la un million bi abal nañ la ko ñetti weer mbaa juróom benn weer du dañ ne boo koy fay day nekk un million bu tegal nangam mën naa am sax tegal ba ñu ne ñoom nañ ko jël léegi waaw boo ko jëlee yow yow jël nga un million bi da ngay defi commerce réew mi su neexee ak su naqaree lépp commerce moom mën naa am nga am bénéfice mën naa am nga am perte wóorul am déet ñoom nag am nañu bénéfice xaat te bénéfice bi téye nañ ko xaat un million bi xëy na dañ lay jox neuf cent et quelques mille téye seen wàll booy fay si nag fay si un million noonu lay demee loolu moom la ñuy wax riba annasia mooy riba bu nga xam ne bi app da koy yokk bu fekkee ne bii nag léegi ñetti weer yi dafa mat nga waroon a fay si amoo loo fayee yàlla dogal yeneen ñetti weer topp ca boo ñëwee looy fay la nga daan fay rek la nga doon na fay day yokk yokk boobu muy yokk te takk li koy yokk mooy temps bi kooku mooy riba nasiya mooy riba nasiya riba fadl nag moom mi ngi am ci monnaie ak ci ñam ci monnaie ak ci ñam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa limoon ñeenti xeeti ñam burru ca la bokk ak tamr maanaam burru ak sha'ir ay xeeti pepp la ah waaye tàndarma ca la bokk xorom ca la bokk mu boole ci wurus boole ca xaalis muy ñaari monnaie mu ne juróom benn yii su ngeen ko dee jaayante na nekk teew mi teew bu leen ko leblente bi maanaa bu kenn leble ñam fayu xeetu ñam wu bokkut ak woowa bu leble ceeb fayu gerte bu leble gerte fayu dugub bu leble ñam fayu xeet ñam bu bokkut ak woowa te itam boo leblee ñam buñ lay fay na doon ñam wowoon te it nam toll na toll nam toll woon bu mu yokk dara boo lebalee sa mbokk cent kilo ceeb bu lay fay na la fay cent kilo ceeb bu la mu fay mukk cent yu tegal benn kilo naka noonu bépp xeetu ñam riba boo xam ne bii nag dafa jëm ci ñam wala mu jëm ci monnaie nga leble ko ñu di la fay weneen xeetu ñam mu bokkut ak moom wala xeetu ñam wi la lay fay sax waaye dafa am lu ca tegu kooku mooy ribal fadl ribal nasiya moom temps moo koy indi notion temps da ciy dugg mu nekk nasiya maanaam dama lay ameel un million weer wi dee na war naa koo fay mënuma koo fay nga ne ma ah xanaa ma teg ci beneen weer waaye kon ne mu nekk un million cinquante mille cinquante mille yoo xam ne benn weer bu nga ci teg wala ñetti weer yi moo ko waral loolu moom la ñuy wax riban nasiya ñaari xeet riba yooyu yépp benn bu ci nekk dafa xaraam ñoo bokk ñëw ci aay may laaj riba yooyu ndax mi nga am ci réew mi mi nga fi am ndax yéen a ngi koy lekk yéen a ngi koy lekk ndax dégg ngeen li may wax ne moom la Yàlla wax dem leen ci surat numéro 2 aaya 275 ba 279 ku ñemee déclaré yàlla guerre yaag mooma ku bëgg dem safara ëllëg tafa yaag mooma ku ñemee ay jaani biir ëllëg yaag yàlla aywa léegi dama doon jël benn misaal rek ci riba waaye bala maa comparer damay dolli beneen seet suñu borom yàlla lu mu wax ci sàngara lu mu wax ci carte loterie PMI loto sport yooni joni joni ñetti xob bieg bi dem leen dem leen ca suratul maida surat numéro cinq dem leen ca surat numéro cinq al maida aya numéro quatre-vingt-dix bismillah arrahman arrahim ya ayuha alladina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون su mboom yàlla nii yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen xam ne sàngara ak mboolem xeeti carte yi yépp ak ay samp ndegam am na fi ay mbokk yu am samp ci seen kër di fa tuur di rendi ak ay xërëm sobe la su bàyyi ko ci seytaane na ngeen ko moytu te sori ko ndax ngeen mën a mucc na ngeen ko moytu te sori ko ndax ngeen mën a mucc loolu su borom yàlla dafa tere sàngara sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam andi ci ay ahadis su borom yàlla dafa tere carte ak xeeti carte yépp te dinaa leeral foofu ni islam dafa am benn principe rek bu mu teg bépp xeetu jeu bu nga xam ne bi ñaar dañ koy seq dañu teg xaalis mooy carte yàlla na tudd loterie nationale yàlla na tudd loto yàlla na tudd PMI lu mu mën a doon ginnaaw jeu la boo xam ne ñaara ko seq kenn ku nekk teg te mën naa am kenn gañ a xaalis bi loola carte la te yàlla dafa tere carte taral ca lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere carte taral ca lool yonent bi nee na soo invité sa mbokk ci kaaynu carte sax am nga bàkkaar boo tax nga war a kafaat xadis la bu nga xam ne bi muttafaq alayhi la man qaala li saaxibihi taala uqaamirka falyatasaddaq yonent bi nee na ku wax sa mbokk ne ko kaaynu carte na nga joxe sarax maanaam na nga génne ci sa poos dara joxe tuube ko bakkaaru li nga wax kon ndeke loterie wax ko xaraam na ndeke pays mi wax ko xaraam na waaw lu tax sunu rajo bi di ko wax lu tax yéen tam ngeen di ko wax wax gi képp bakkaar ngi ci moo xam ne yonent bi nee na li ci war mooy nga dindi dara fekk miskin nga jox ko ko ndax yàlla baal la wax gi amma def gi moom boo ko defee kooka meneen musiba la moom sarax dindiwu ko ci beneen xadis bu nga xam ne imam ahmad moo ko solo mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na masalu alladi yalcabu binnardi summa yaquumu fa yusalli masalu alladi yatawaddau bilqayxi wa dami alxinzir summa yaquumu fa yusalli nard xeetu polak ndax ngeen xam ne carte yemul ci yemul ci xob yooyu rek ngeen miin nar de xeetu polo waraa bi daan def di ci teg yonent bi daf noo bëgg a wax ne daal bépp xeetu jeu bu nit di def di ca teg ka koy def def ko ba noppi jóg dem di julli ne lam ko mën a misaale mooy ku fab dëtti wànjar ak deret waxul dëtti nit de wala dëtti xar wala deretu xar déet deretu mbaam xuux deret yépp moo ci gën a bon dereti mbaam xuux la fab jàpp ca ku mos a jàpp ci deret ci yéen ndaw salte yonent bi nee na kay dem di jënd xobu pay mi wala carte loterie ba nëpp jóge fa dem di julli ji mi ngi mel ne ku fekk deret ak dëtti mbaam xuux nga jàpp ca ba noppi dem di julli daf may fàttali sama benn doom sama benn doom bu jóge woon Ndakaaru fan yi ñëw faas di ma nettali rangu pay mi gu guddi gi mu ne da seen génn góor goo xam ne mu nga yor kursen di def toj toj toj mu ngi ci rang gi di werd ah pour gagner nag werd pour gagner ala kulli xaal ala kulli xaal yonent bi moom nee na ka def loola daal ka def loola daal misaalam mooy ka jël deret dereti mbaam xuux ak dëkkam jàpp ca ba noppi jóg di julli ma gaañu googu julli dana baaxa déedéet du baax kon nag ñuy werd ci rañi loterie nañ nappal seen bopp ñu nekk ci jàkka ji te bu ñu génnee aw ca rangu PMI gi nañ nappal seen bopp julli gi du baax julli gi du baax bu dee te am na ñu nga xam ne ñoom nee nañu daal loterie dara ñëw ci PMI dara ne ku ci man sàccuma ko defuma ko nen na damaa fa sama xaalis jox ko kii d'accord nañ ci mu jox ma ko ah d'accord ngeen ci ndax yàlla d'accord na ci bu ngeen ci d'accord te yéen ngeen di ñaari jaam yàlla sàkk leen moom leen sàkk xaalis bi ngeen yor moom ko te kenn moomu fi benn dërëm ku yaakaar ne yaa moom benn dërëm wax ma noo ko moome su Abdoulaye Touré yaakaare ne montre bii mu takk moo ko moom nu mu ko moome dama koo jënd bisimilah xaalis bi fu ma ko jëlee dama koo bay bisimilah ba may bay ba ma suulee jiwu ba maa ko saxal ah wàcce ndox ma maa ko màggal bisimilah montre bi kama ko jaay ndax moo ko moom kama ko jaay ab commerçant waa ca Sandaga da koo jënd fu mu ko jëndee Japon waa Japon ñoo ko jaay waa Japon fu ñu ko jëlee ñoo ko liggéey seen usine ah kon nag ñoo ko moom ndax ñoo ko moom fu ñu jëlee matière première bi gas ci suuf fekk ko fa ndax ñoo ko fa dencoon denc ñu ko fa kon moomuñu ko yow mi jënd carte PMI moomoo sa bopp ki ngay kartel muy ngeen bokk ci juboo moomul boppam xaalis bi ngeen yor moomu leen ko nga ne man naa am sama xaalis moo ko defee rek baax na foo ko teg foo ko teg ci sàngara borom bi da cee def tasaddud ci araamal gi dafa taral araamal gi ba araamal ku ko jaay doonte da nga koy jaay yéefar ab jullit sañ ta liggéey mukk doon import export sàngara commerçant bu fi nekk ci réew mi ndegam ab jullit nga na nga xam ne sañoo jaay sàngara sañoo ko importer sañoo ko exporter ab jullit amul sañ-sañu am bitik bu ñuy jaayee sàngara te fekk bitig bi yaa ko moom yàlla na fekk moomoo marchandise mi waaye bitig bi képp yaa ko moom ñu fay jaay sàngara amoo ci droit li ma bëgg a wax mooy maanaam képp koo ci xam ne kii da ngaa amoon am taax luyee ko ab yéefar mu di fa jaay sàngara demal nangu ji luyaas ba luyee ko jurit bu fa man def lu dagan yaa diina ji day tere nga moom barab bu nga xam ne dañ fay jaay sàngara yow jullit bi wala ngay liggéey ci barab boobu doonte doo naan sàngara am na xadis boo xam ne tirmidi moo ko nettali ak ibnu majja mu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne laana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi lxamri ashratan عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى والمشتري لها والمشترات له يانت بي ربنا فك تي سانغار فك فك يانت بي ربنا كي نال سانغار كي كو ديفار ndax usine bi defar beer wala xeetu sàngara benn am na ci réew mi yonent bi rëbb ne kii defar sàngara ak ka koy defarlu ka def demande ba ka koy defarlu rëbb ka koy naan rëbb ka koy importé ci otoom wala ci loxoom wala ci saretam wala mu yore ko rëbb ki koy maanaam ki koy yóbbu kon ak kañ koy yëpp yàlla na fekk naanu ko waaye moom dañ ko yëg kese rëbb ka koy servir homme d'affaires bu nga xam ne bi dafa am ay xarit tubaabam yu jóge Europe ñëw nuy si ko te moom nag julli la di naan sàngara lal na taabal ji te nag tubaab bi ñoom dañuy naan sàngara bu mu foog ne am na sañ-sañu jëndal leen sàngara servir leen déedéet yonent bi rëbb na ku servir sàngara rëbb ka ko jaay rëbb ka lekk njëgg ka lekk njëgg kese naanul defarul jëndul jaayul waaye moo lekk njëgg bi tël sàngara la muy jar benn bit biteel bi ñu jaay ko ñu jaay ko najar najar najar juróom-benn téeméer juróom-benn téeméer ku ko lekk yàlla rëbb na la rëbb ki ko jënd rëbb kañ koy jëndal léegi nag laaj yi moo ci topp ma joxe exemple ci riba joxe exemple ci sangara ak ci loterie ak PME ak seen xeeti carte yu bari yi ngeen di def da ngeen baal ma ko laaj yi ci topp mooy ñaata banque yiy def riba ñoo am ci réew mi ñaata la ñaata nit ñaata nit la yonent bi rëbb ci biir Sénégal ngir lekk gu ñuy lekk riba ñaata la ñu naan rëbb mu yonent bi noonu la waye fi fi yéen naan rëbb mu yonent bi noonu la waye fi fi yéen ñaata nit lañu rëbb ndax dañoo lekk riba wala ndax dañuy ay fonctionnaire ci ay société yuy liggéey ci riba wala ay banque man ne ma sama juum yàlla nattuma ba ma ubbi ci chaque poste benn benn benn benn compte xamu woon ne poste day def day def riba xamu ci woon dara dem ah du def riba de xaalis si poste bi dajale di ko du ci liggéey du ci liggéey waaw waaw waaw waaw waaw waaw leeraloo nag waaw d'accord d'accord waaw dafa loxo yam rek déedéet ginnaaw xamoo nu ñuy def xaalis bi rek yow leeraloo dara ci biir Sénégal bis bu nekk ñaata kayit la ñaata carte lañ fi jaay ci loterie nationale ci loto ak ci pays mi ñaata kayit ñaata kayit su fekkee ne bi nga wax sa mbokk képp ne ko kaay nu loterie mbaa kaay nu carte wax ko ko boo ko wax képp wala kaay jënd carte pays mi loolu kese bu fekkee yow defe goo ko sax waaye wax gi rek bakkaar la boo xam ne kafaara war na ci comme ni ko gis ci xadis bi kon li may laaj mooy ñi war a kafaara ci Sénégal ñaata nit lañu kafaara boobu ñi war ci Sénégal ñaata nit lañu laaj bi ci topp te mooy tontu suñu laaju conférence mooy parti politique yi ngeen fi am benn bu ci nekk lan mooy taxawaayam ci yi ngeen dégg fii yépp ma wax ko foofu la ñuy jëlee taxawaayu islam ci parti yi ndegam danoo bëgg a wax dëgg rek ngir yàlla yi ngeen dégg yépp benn bu ci nekk bàkkaar la te du bàkkaar bu ndaw bàkkaar bu mag la bàkkaar buy alage la lan mooy taxawaayu parti politique yi ak institution gouvernementale yi ci riba ak ci liggéey sàngara ak ci jaay ko ak ci loterie ak yeneen yu dul moom ci xeeti carte yi ndax dañ ko araamal ndax dimbali nit ñu fegal nu ay woowu ndax jéem nañoo mabb yooyu nga xam ne mi ngi yaar ci riba am dañ ko jéem a taxawal am dañ ko jox légitimité ndax dañ ko aaye am dañ ko défendre aar ko tontu leen seen bopp compareel seen bopp daal di xamal seen bopp lan mooy atteb yàllaa ko yonentam ci ci ci seen parti politique yi yaakaar naa ne itam ñaari nit duñu werante ci ne loolu ñuy wax code de la famille dëppoowul ak attey alquran am jàpp ngeen ne code de la famille alquran a ko wax yàllaa ko jox sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu andi déedéet ñi ko tëral ñu tudd leen ay juriste sénégalais wax dëgg yàlla ak ñeme laa mën a tuddee dama gisuñu bopp ak ñeme la yàlla sàkk asamaan ak suuf sàkk waa Sénégal moom leen tëral kodam ci alquran ak sunna keneen nit koo xam ne kii moom sàkkut moomut jóge fa ñëw di tëral yeneen atte yi wuute yooya pour man loolu ak ñeme la gu rëy te it ak weddi alquran la te it ak weddi la mboolem dañu wàcce ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem di jël ay mbiri atte yoo xam ne alquran wax na ci ba noppi yàlla joxe na ci ay ndigalam ba noppi ñu sànni ndigali yàlla yooye wattee ko leneen wattee ko ay acte yoo xam ne dafa opposé loi yàlla tëral loolu daanaka xaw naa doon aw saaga ci mboolem borom xam-xam yi jullit yi ci Sénégal ak kilifa yi diine yi imposé peuple bi ñu attewu ci te yàlla moo waxal boppam ci alquran ne attewu ci lu bokkut ak li yàlla wàcce kéefër la tooñ la caay-caay la foofu it may laaj lan mooy taxawaayu seen parti politique yi ci ci code de la famille ndax fegal nañ ñu aywa ndax jéem nañ ñu ko fee jëleel am ñoo ko fi bàyyi am ñoo ko imposé jullit ñi comparé leen seen bopp ngir ngeen xam lan mooy ndigalal yàlla ci seen parti politique yi te musibam attee ci Sénégal yéemul ci code de la famille ci laa mën a yem waaye yéemul ci bu dee ci wàllu programme mu njàngale programme officiel bi mboolem maraaxil yi la ko tàmbale ci jardin jardin d'enfants jaar ci primaire cours préparatoire jaar ci seconde ba àgg ci université matière boobu ñuy wax islam nekku amu ca njàngaleem alquran amut ci suñu école publique yi jàngale pas-pas yi nga xam ne moom la yàlla bëgg moom la alquran bëgg ab jullit gëm ko amu ci valeur yi jëm ci wàllu jikko yi ci alquran indi kenn jàngale ko suñu école publique yi yi jëm ay atte yi jëm ci julli asaka koor aj màkka yi jëm ci njaay luwe takk jabar ak yi ñu demee kenn du ci jàngale dara ci suñu école publique yi te montin école publique yi rek école boo ci dugg téeméeri élèves yoo wàññi juróom-ñeent fukk ba ak juróom ay jullit lañu ko kon bokk waroon nañoo am droit ci xam seen diine jàng ko ci école ba nga xam ne fa la ñuy passé li ëpp ci ba waxtu bëccëg bi ak li ëpp ci bisi semaine bi su ko defee loolu tam ci beneen misaal mën nañoo jël beneen misaal ci al jins jins mooy jote ji war a nekk diggante góor ak jigéen képp ku xam tëralilu islam xam gu wér xam nga xër gu islam xër ci bëgg ni individu yi ak société bi set wicc laab bañ a salte bañ a sobe ci sobe yi bàyyi koo ci jote góor ak jigéen gu sellul jote góor ak jigéen dafa am ñaari xeeti jote jote gu sell ak gu sellul jote gu sell mooy gu jaar fa yàlla rëdd gu sellul mooy ga ko jàdd képp ko xam diine nag xam nga islam ni mu xére ci bëgg nit ñi set bañ a salte société yi set bañ a salte ci joteeg góor ak jigéen bu sellul